déglooti leen ba ma wax ci Sëriñ Saaliw ki ñépp naaru yaa ngi ay borom déglooti leen ba ma wax ci Sëriñ Saaliw ki ñépp naaru yaa ngi ay borom Sëriñ Saaliw ki xol yi xëy yëgandoo mi sàll yaaram ba léegi kii jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou ginnaaw bu ñu sante sëriñ saliw sant yàlla suñu borom sant yonent bi ñu ngi waxati jëfati sëriñ Bàccu ñu ngi ñaan soxna Aïda Saliou jaamam bi yàgg fi lool te gën a wér ñu ngi ñaan soxna Aïda Saliou taalibeem bi yàgg fi lool te gën a wér waaw day mel ni. Euh, euh, euh, sëñ seigne beu ci man duma ko mën wax ndax kuy jóge fi ku fi jóg melul mënul mënul dul def li sëriñ bi du fi jóg li mbiru beu ci la muy mbiru sëriñ saliw tout à fait euh, ma manké wuñu euh, ndax sëñ Béthio euh, ni la ko don defé ku gis li di nga xamné li mbiru seigne beu ci la préparatif magalam ambiance bi lépp nii la mus di demee kon bu demee ba tey mu mel ni euh, ku soppi jataay jëf ji yokk mën-mën bi yokk xam-xam bi yokku dañ koy sante sëñ Bàccu ndax moom daf ñoo dimbali daf ñoo dimbali daf ñoo teg ci yoon yoonu sëriñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am seex bi daan na màggal waaye màggalu ren gi yóbbu na ko foo xam ne moom cheikh bi euh, jaar ko ci soxna si muy soxna Ayda euh, musu farit lii lii musta am te yow mii nii taxaw xam nga ne lii musta am loolu nag tànki kanamu Serigne Touba yi lay tekki mhm. waaw xam nga soxna si day cheikh bi da ko ne yaay man may yow te ñun ay taalibe lañ te taalibe ndigal moo koy jariñ taalibe moom ndigal kepp te ndigal li nga xam ne moom lañu am moy ñu and ak soxna si liggey bi non la démé non man gisuma loolu man dama gis né lay tax liggey bi gëna sont liggey bi gëna dox hmm man loolu lagi. gis no bersa dara amul soxna si euh, fi di Ngaabu daf fay yag di magalé 2012 ba légui mu ngi fi magalé 2011 2012 loolu nak su amé daaw rek fi la nga fi la wa nga bu xam nañu loolu ñi xamit xam nañ ne yàgg na fee màggalee ci ndigalul cheikh bi ndax moom ndigal Tuuba mënuma ci dara waaw mënuma ci dara waaye nag neex na ma te gënal na ma te it nangu naa ko te ci dara it nag te duma ci daw dara nag di wax nangam la ak nangam du ko mët ndax moom moom mi nga xam ne mu moom moom la sëriñ bi dogal mu jëf-jëf ji moom ci boppam xeeb na ko yaa ngi gis léegi muy wàcce waat ay gileem te ñu ngi xaar yeneen nag yu ñëw kon moom ci ci xeeb xeeb na jëf ji jëf ji xeeb na ko lool kon duñu mën a nekk fii naan nangam la ci ay nag nangam la ci ay gileem nangam la ci ay xar wala nangam la ci ay ginaar déedéet déedéet loolu mënuñ ko ndax ki nga xam ne li mu jëf da koo xeeb kooku du ko compté du ko di sant soxna si bu a baax a baax waaw waaw waaw di ko ñaanal mu yàgg fi te wér yàlla na fi yàgg te wér waaw waaw waaw waaw sagal nanu sagal nanu lool lool lool lool lool waaw sagal nanu ñu ngi ñaan mu yàgg fi te gën a wér.